pour képp ko xam ne danga umu loo dugg du sotti sa yaakaar boo amu tas la majeure partie loolu cat moo koy def ak bët ak làmmiñ bu ay waaye secret bu leen di waaj a dëgmal boo leen ko defee respecté ko incha allahu rabbi yàlla di leen musal si làmmiñ bu aay incha allah laata ñuy tàmbali waxtaan bi di leen ñaan rek bu leen fàttee abonné ci chaîne bi bës ci cloche notification bi bu ko defee vidéo bu ñu mënti dugal rek ngeen bokk ci njëkk jot fay di leen di fàttaliwaat rek ay commentaire yi aussi ay secret yoo xam da ngeen bëgg ñu partager ko commentaire yi incha dinañ leen tontu te bu leen fàttee aimé vidéo bi partager ko ndax daa am solo lool ndax moo ñu may doole secret dangay bind boo mënul bind aussi nga xool fi nga dëkk du ñàkk nga am fa xale boo xam ne jàng na alxuraan nga fay ko neexal ko mu bindal la ko dangay ngay bind surat falax yi maanaam surat ola uzubra bi falax nga bind ko juróomi yoon nga bind ko cinq fois nga bind suurat naas maanaam ola uzubra bi naas nga bind ko six fois nga boole ko ak ndox nga nga yokk ci Euh, làmmiñu bëy maanaam la langue d'un chèvre làmmiñu béy nga ci yokk bu ko defee nga koy sangoo pendant sept jours maanaam nga koy sangoo pendant juróom-ñaari fan boo ko saxalee respecté ko incha allahu rabbi comme ni ñu leen ko digalee yàlla sunu borom dina la musal ci bët bu aay làmmiñ bu aay lépp luy caat incha allahu rabbi di nga ubbeeku say wërsëg dina yokku incha allah mbok yi fii la ñeem ak yéen ba beneen vidéo inshallah di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex ndax kontaan nañu lool gis nañu yéen a ngi abonné ci chaîne bi yéen a ngi aimé vidéo yi te yéen a ngi aussi vidéo ndax yeneen bokk jullit si mën cee jot di leen ñaanal gudd fan ak wér ak ci xewal yu yaatoo yaatu inshallah di leen di fàttaliwaat rek boo leen amee ay laaj ngeen bind ko ci commentaire yi te boo leen amee aussi ay secret yoo xam ne da ngeen bëgg ñu partager ko yéen ngeen bind ko ci commentaire yi dinañ leen tontu inshallah. bu leen fàtte it abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi partagé ko ndax da am solo loolu moo ñu may doole yal na leen fay